asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay képp ku nekk si biir euh, daara Lu Xew TV waaw man de instant yi moom sànq maa ngi déglu maa ngi topp vocal yi waaye dafa am benn bu ma si dégg boo xam ne nii wax dëgg yàlla daf ma intéressé te moom ma tax a wax mooy sëriñ bi nga xam ne dafa doon wax naan ñoom xanaa amuñu si kuñ jokk c'est important li mu wax. dama yaakaar ni ñoom bu fekkee am nañ seen sëriñ boo xam ne dañu dem si moom ñu ko jébbal naa sa àddina ak kooku moom moo war a sénégalais yi dimbale société bi tegaat leen si yoon bu fekkee mi ngi leen di gis wala loolu ñuy wax dëgg la ñoom ay jullit lañ parce que nag ab jullit bala ngaa nekk jullit dëgg dangay am sëriñ boo xam ne moom nga jébbal sa bopp mu lay wan fi nga war a jaar boo dëngee bu fekkee am nañ sëriñ seen sëriñ boobu moo leen war woo ba ñëw wax leen li mu leen war a wax teg leen si aw yoon ndax nag nekkul lu bon rek dañ koy génnee sànni bu fekkee ñoom dañoo dëng wala ñu réer te Sénégal lañ nekk société Sénégal lañ bokk sénégalais yi ñoo war a wax ak ñoom war ñu leen génnee sànni parce que xaw ma fa la leen di yóbbu ndax kenn du bëggul nit ku bon wala ku yàq sa société kenn ku nekk boo sañoon kuy defar société ngay ut te ñi moom vraiment defaruñ société bi chaque jour dañuy décevoir nit yi dañuy dañuy tàngal xolu nit yi. man nii may wax génn bi ma gisee Ouzin Keita li nekk sama xol bi nu ma ko sax expliquer alal nag Wolof Njaay nee na alal du mat ngor mat waaw benn rek moo ci mën a mat tag xam naa de képp kuy dund si àdduna war nga xalaat bis ñëw ñu takk sa loxo takk sa tànk bis boobu ku du xalaat lu neex ci àdduna defal ñii nag moom xalaatuñu ko waaye war nañu mënaat naka la ak nan la ndax ñun suñu Sénégal gi xàmmeetuñ ko xàmmeetuñ ko tey xàmmeetuñ ko ëllëg te bu fekkente ne ñun suñ président dañ ko jënd wala ñu jiital ko ba mënul wax dëgg bi kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñoom ñoo war a mànkoo nekk benn taxaw xeex xeex bi jël ndam li delloo Sénégal ci fi ko ñëpp xamee woon maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di jégalu bu baax si wax ji bu guddee. Eh, salaam na ngeen def Lô TV Ndiaga Fall la nag maa ngi leen nuyu yéen ñëpp mais Sonia Kayit mi billaahi li mu def nii yàqu société bi la instant yi ci yoon daa war dal si kawam billahi teg ko ay daan yu metti même quand Wally Seck nii la demee woon fi mu doon nii buñ ko buñ rakkoon diggam ba léegi du ko def daa gis Wally def ko amu ci benn problème moo tax mu def ko nii.